ja Haga wa الرحمن وجاد لله حمدا li ba بكل لغة Fazul bila

la he ja Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy setaan ci biir réew mi ak bitim réew euh, ci chute bu mag bi di Baol Time euh, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah sant yàlla bu baax di julli ci yàlla muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sant nag suñu buntu ci lislaam di xaadima rasulu Cheikh Ahmad Bamba am nag mbégte ci kii ñu toogal di ji ministre Dame Diop dem nag aji Makka dellu siwaat alhamdulilahi rabbil alamina Euh, yàlla yàlla nangu sa aj nangu aju koo fa dajeel ak ku moo sa aji yàlla sañ na ko mën na koo yàlla ko yàlla def dafa mel na monsieur le ministre bi nga ñëwee euh, fii ci kër sëriñ Touba wala kër maam Cheikh Rahim Fall Babul Mouridina góor jigéen mag ak ndaw kilifa yi ñoo ngi nii jàkkaarloog Serigne Moussa Mbacke ab Oudour sëñ Abdoulaat Cissé léegi la fi génne ak ñeneen ak ñeneen ak sëñ basiiru Mbacke ak sëñ Dan Mbacke ak ñeneen euh, incha allah noonu rek lañ koy war a continuer. Euh, dañ lay wax nag loo yëg bi mbooloo ñëwee. jërëjëf Alaaji Baara maa ngi lay nuyu di la ziar di tàmbalee suñu waxtaan ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Xaadim Rasul sant yàlla bu baax bi ñu mayee ñu dem ziyaare ji dem Màkka dellu si ak jàmm. ma am mbegte nag tey daje ak samay mbokk fii ci njaareem ñu ñëw ziar si ma ñaanalante man ak ñoom ma am nag lu ma yëg lu sori ci man ndax wax dëgg yàlla bi may dem Màkka tàggu naa ñu bëri sama jot mayuma ko woon waaye comme léegi réseaux sociaux dafa xew ma dugg ci réseau yi tàggoo ñëpp tontu ma ñaanal ma ma dem ak jàmm dellu si ak jàmm suñ borom nangu ñaan boobu ma def ko kon boog dafa jaadu woon tey bu ma xawee dallu as tuut ma egsi fii saafonte ak nit ñi xaw leen ko yombalal nag ndax ba ñu ñëwee ndakaaru ba léegi ñëpp dañoo amoon yéene egsi ndakaaru siyaarante ak man ma ni leen nag nañ ma ma jéggal naa ñëpp dañ ma may rek ma egsi fii tey ñu daje fii pour saafonte ñaanalante euh, ci barke Médine ak ci barke Kaaba ga ñu jóge nii ma am ci nag mbégte bu rëy rëy rëy ndax ni nga ko waxee léegi euh, militant lambda yi ñëw nañ Jurbel waa lambda yi ñëw nañ kilifa diina yi ñëw nañ kilifa aada yi ñëw nañ kilifa politique ñëw nañ a ah, man nag ma leen di sant bu baax a baax a baax di wax ne daal ñaanal nañu réew mi ñaanal ñëpp ñaan yàlla yàlla nangu ñaan may wax ne am na xol bu sedd ak mbégte ci wax dëgg yàlla nit ñi ni ñu ñëwee saafonte ak ñun ci bés bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nag ñëpp dem luñ fa ñaan suñu borom nangu ko suñu borom def jàmm ci réew mi eh, defal ñu xewal ñun ñëpp incha allah rab bi ñi dem delluwaat ñi demul suñu borom yóbbu leen ndax lépp xewal la. waaw marché it ñëw nañ maa ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay comme ni nga ko waxee ku lim doomatal waaye kilifa yi ñëw nañ eh, kilifa diine yi comme ni ma ko waxee kilifa aada yi. élus yi maire yi ñoom ñëpp ñëw nañ ñii ñëw nañ sax ba Dakar siyaar si ma euh, ma leen di sant di gërëm li may wax daal mooy waa Njaareem mënu ma leen fay maa ngi leen di sant bu baax yàlla mi am fay ci barke yoon wi ñu demoon yàlla na leen yàlla fay ñoom ñëpp ma bereel ci nuyoo nag sama sëriñ sama xarit sëñ Moussa Abdou Wudoot Mbàkke euh, di ko sant bu baax ci ñaan yi ak taxawaay bi ndax li ñu nekk mag yëpp ñuy defal ñaan jërëjëf Mbacke ñu ngi koy sant ko gërëm. waaw soxna yi moom kenn mënu leen a sant ba ba mat ndax wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ euh, bi ñu àndee ba léegi ñu ngi jàpp tëwa bàyyi euh, wax dëgg yàlla tey it bi ñu ñëwee ñoo fi njëkk ba léegi ñu ngi fii toog euh, di def liggéey bu am solo ci suñu wet. duñu mën dul sant leen ñaanal leen ñoom it suñu borom lii ñu yëngatu ñu tuddee ko politique suñu borom may ñu ci ndam ñun ñëpp. ba wax dëgg yàlla yàlla mi am fay yàlla yàlla fay. ma ne ko El Hadj ministre ma ne ko El waaw ah ah, waaw ah, mais il faut que ma ñëw voilà Moustapha léegi ma ne ko nag man il faut que ma dellu nag. <laughs> ñëw ñëw kuréel. waaw il faut que ma APR daal ñoo ci nekk. war ma cee dugal. nañ cee dugg. taaral ngeen ko. waaw macha allah taaral ngeen ko. lii ci ëpp solo. moo jëm solo waaw waaw waaw. ku moom. waaw lu ñu ko mën a defal ci àdduna. lii li gën moom. jàng alxuraan jàng xasida gëm ne murid bu dem Makka. Hmm. sëñ Tuubaa nga fa demal. mot mottali ko yéene. te te li def nii nandul buur la. kenn du ko tëggal baa doon. ku jógee ci sëñ ku jógee ci yonente woon nag. sangu sangu borom. Hmm. moom yàlla na. wooyu ci sëñ Mor Anta wooyu ci menn mbokkam. yonente beeg boromam rek. kese. kon li ngeen ko defal moo dàq luñ ko mës a defal man loolu ah, la dëgg moo dàq luñ ko a defal moom. waaw bi moom. kër gi doon na fi laabal yére sëñ teen bii nga gis ci bunt bi ma ñëw rek. Ah, teen bii nga gis. soxna Faat soxna Faat Ndiaye Ali maamam. doon na fi laabal yére sëriñ ku tedd. di sëñ Xaadim Rasul këru barkeel moom mi nga laaj nu mu demee sëñ Touba seex coro Balla coro Kumba Tayba maam seex coro mi maamam moo meññ soxna Sukayna Mbàkke soxna Sukayna Mbàkke Fat Njaay alee ko meññ Fat Ndiaye Ali moo meññ Moustapha Diop Kajoor Moustapha Diop Kajoor moo meññ Dame Diop ministre ñuy toog allah ñu boo gisee macha allah macha allah yar beeg teggin gi mënula wax lu ñaaw donnuwu ko foru ko du ko fortaatu musta de munta def lu ñaaw donnuwu ko foru ko du ko fortaatu ku ko waxal sax mu bala bala ngaa am lu la naqari nga bëggal ko wutal ko noonu bëggul noonu bëggul ku xam ko am noonu waaw liggéeye la xam ak jaamu yàlla ak yaru rek liggéey ak jaamu yàlla rek moo tax tey jii ëtt bu ko neex mën naa daam ndax ndax ku dégg tey bii bis bi rek li ngay njëkk a wax mooy am nga yéeney ñëw soo mënul ñëw ak sa jëmm sa xol ñëw na waaw léegi la fi sëriñ Mor Mbaye Cissé ab xalifaam jóge di sëñ Abdoulaye Cissé sëriñ Moustapha Mbacke Abdou Dodo ngi nii ci biir néeg bi fi ngeen ko fekk sëriñ Dan Mbacke léegi la fi jóge njabootu maam Cheikh Rahima Fall gi ñu ngi fi demaguñu ñu ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dégg nga waa kër maam Alaaji Malick waa kër maam Mbacke Tandiang waa kër maam Thierno Kanji fu mu fi dem am na wàccuwaay ngex nit ñi am nañu fulla am nañu fayda boo yoree loo leen jox boole ko ñàkk teggi nag réew ñu balaag loola féeteeg yàlla mi dul jeexal dara soo yoree ndombo tànk soo ko yorul soo leen wonee yar won leen gin won leen oyof ñu fab la fat la tée xam nga fu ñu lay def ci seen xol loolu nag moo ko dal ci njaareem moo ko dal ci ñëpp waaye moo ko dal ci Sénégal léegi-léegi nga dem benn région ñu ne cey ñun bu ñu amoon ministre Dame Diop cey cey ñun bu ñu amoon ministre Dame Diop waaw waaw njaboot gii di politique day mun a mu ne ko cey ñun bu ñu amoon ministre Dame Diop yar baak teggin am na ñoo xam ne dañ naan man ci télé rek laa ko gis bu ma gisee ci télé fonk naa ko ndax saa bu duggee ci débat xuloowul xasewul xeexul lu mu lay wax xam-xam la lay wax loolu nag mooy jëriñu réew mi moom xasut xasewul xeexut xuloowut xuloolewut xeexut waaw mbooleem ñi ànd ak moom mooy jom rek leen booleeg ñoom jom rek ak fula ak fayda ak fonk ko Moustapha Diakhoum paa nii lu ko di di jaay taalib sëñ Touba la ko am sëñ Touba kay loo gisati Ah? ah mi ngi noonu jërëjëf jërëjëf ah maam Ndiaye maam Demba maam Ndiaye sa mag ja soxnaam a ngi nii dafa voyagé mi ngi doog a ñëw Ibrahima Gueye yow jërëjëf sëfoor Sénégal hmm? waaw waaw ma nga ne waaw. mooy suñu lépp. Hmm. yàlla yàlla fay bu baax. Hmm. ñaanal leen tax ba tax hmm. waaw jeex na. na yokk ba yëg ko nu yëg ko. réew mi yëg ko dëkk bi yëg ko. te mu ànd ak mucc ak ak wér. ndombay tànk yu kawe. yu mën a liggéeyal réew mi liggéeyal ki Serigne Touba liggéeyal ki l'islam bi. liggéeyal ci dëkk bi amiin yaa rabbal aalamiina amiin yaa rabbal aalamiina barke sëñ Tuubaa